population bi li suñu alal la police gendarmerie sapeur sen rôle moy ñu taxawu askani buñ leen gisé dañ leen wara jox dimbali ak pour que liggéey bi ñuy liggéey mu askan dafa solo ngi remercier police ñom ñoo fi nekk tay di leen xamal ni ñun ñu ngi parce que bu suñu xel c'est parce que alors ñaar la ma askan gi yóbbante pour ma indi ko. bu fekkee ni nii dañuy defar lu taaroo nii ñu xool ba bureau parce que bureau passeport bi moo doon feccloo ñëpp tey jii ñu koy laam-laamoo naan ndax dina am du ndax du am monsieur le ministre solennellement maire demandé na ko mais ñun population ñoo ko gën a demandé maire c'est Rufisque en général qui fait cette demande lu ngeen gën a mën a gaaw pour defal ñu fi euh, bureau passeport ñun dañuy jël bi ci des wax na ko sànq bu fekkee ni ni police dafa am xarañte di liggéeyal askan gi dafa am war a am lu ci topp li ci topp loolu ñun ñoo ko gisal suñu bopp lors des événements passés on a vu une voiture de police tomber en panne ça nous a fait mal heureusement que à Koloban Guy Mouride et environ dara yëngatuwu fi parce que am nañ kuréel yuy tënk nit ñi pour que ñu jaar yoon bu ñu instauré lu mel ni au moins ñu jox leen des moyens logistiques yoo xam ne ni c'est-à-dire une réaction dina gaaw pour que liggéey bi ñuy def mu yomb parce que Rufisque nangul nañu nit ñi au début bi muy commencé Colobane commissariat Colobane Guy mourid la won mais nangu nañ mu doon commissariat Rufisque s parce que yaatal la ñepp ko bok yalla na gëna yaatu mais nañu fexé ba Rufisque s bi ñ koy bi ah, mu fexé am ay moyens logistiques yo xamné ni dinañ mëna a liggéey liggéey bi nga xamné ni dina jaar yoon donc loolu du waa police ñoo ñu ko demandé du monsieur le maire moo ñu ko demande mais ñun ñu ngi ci bàyyi xel di xam na ni loolu kat bokk na ci li nga xam ne dina dimbali seen liggéey bi ci des te amal ñu importance trop monsieur le maire euh, euh, monsieur les ministres je dis bien les ministres Ismaïla Madior yaa ngi Rufisque Est monsieur le ministre de l'intérieur yaa ngi fii bu fekkee dañuy am bureau passeport ñu am bijou bu toll nii ñu defar fi maanaam dëkk bi commencé di doon une ville day baax ñu wax leen benn doléance bu ngeen di yóbbu auprès de vos compatriotes mooy ñeneen ministres yi wax leen ni ni fi ñu toog nii dañ fi bëgg ab tali bu am assainissement